waaw man ah, may magay ndaw ma nekk ah, nouveau maire bu ñen di jema remplacer Ousmane Tano Dia alors euh, monsieur le maire euh, moy premier conseil municipal gannaaw bi Ousmane Tano Dia bi nga tudd léegi euh, dëddoo euh mën nga ñu wax delu ci tuuti ci conseil bi. waaw man ah, ma nga won si bir conseil bi. Yo, xam que je man comme président conseil rural pendant 12 ans Nous, en 2014 nous avons créé la communalisation a été le conseil rural qui en commune Je suis na candidat Ousmane suis un candidat un leader comme moi, comme suis je suis un xel tout ça. man maa yëkkat sama loxo di wax ne nii ak nii la entre moom ak man ma bàyyi ko mu nekk maire conseil bi bàyyi ko mu nekk maire population bàyyi ko ba yàlla def li muy def kan yéene ko ko yàlla xare ak gina mu nekkoon benn royukaal suñu maire bu naqara remplacé la mais yàlla muy Karim mu ñëw remplacé ko remplace ko avec une équipe le 23 novembre ba heure bi yàggut at mi un xam nga né collectivité locale ay fo démé ba le 15 décembre parce que activé yépp dañ koy parce que les comptes dañ koy wara clôturer tous les comptes Nous avons un fonds yoo xam

action moy fond yoy ñu def passation vendredi bi passé mak la maire intermédiaire suñ plan d'action premier moy li mëna def moy activité yi ñu suturaaloo ñu relever ko commencer par la fonds Ni dotation nit ñaa ngi bëgg kaye bëgg médicament ni ñaa ngi jeunesse yi ñu ngi bo def sen nawetaan

moy aussi le fonds de concours et investissement yo xam dañ def parce que nit ñi collectivité locale l'État état fay am da fay accompagner ci li ñi au fond une fois ben accompagnement de 63 millions yo xam dañ ko wara def si investissement jël 21 millions yo xam dañ ko jël fonds de euh, dotation ak 20 millions yoo xam ne dañ ko jël ci ses sels mooy euh, impôt bi remplacer patente yi donc loolu moo nekkoon suñu orientation aujourd'hui et puis aussi moo nekkoon une première prise de contact avec le conseil parce que depuis lors tooguñu war ak conseil conseil bi bi ma oo convoqué conseil municipal ñu waxtaan si am ay points de proposition ni nag da ngay proposer mais ce n'est pas que ce que vous proposez, c'est ce qu'on adopte. Parce que nous, c'est un processus d'administration. Moi, quand vous avez dit que ce qui souffre, c'est ce base, vous avez commencer. Parce que la base est moquée, il n'y a rien de faire. Adopter nous. Adopter nous, bien sûr. Vous avez dit. Mais quand vous avez dit, vous avez dit. Vous avez le droit de poser des questions, livre-moi ça. Def quoi, livre-moi ça, livre-moi ça. Mais le la majeure partie, c'est une proposition. Quel conseiller le gen, et gen, akanyata nyote otei? Nous avons 56 conseillers. Mais il faut que j'ai presque 55 yeptem. Donc le quorum est largement atteint. Amour, ko xamne contre nako amul ko xamne neutre nako ñepp yëkëti loox sa kanam donc lool donc lool aussi ñu rafetlu ci alors nga nekk maire boo xamante ne comme ni nga ko waxee euh, da nga remplacer ku mag ñu bëri nag toog di la xaar ñu xam ne tamit euh, commune la boo xamante ne euh, mbir yaa ngi ñëw surtout ñu ngi lay bàyyi xel ci wàllu domanial beeg yu wàllu yu dem noonu yow nga ñëw hérité loo xamante ne diis na lool yow nan nga fas yéenee gere loolu. man xam nga métti na nag wax naa leen man 2002. ba 2014 maa fi nekkoon la ma fi nekkee woon loolu laa fas yéene nekkee fa lu baax lu bon ma teg ko fa dem di liggéey en collaboration avec l'équipe municipale La ko avec tout le conseil métti na parce que Ousmane Tanor Dieng qui était le maire d'ici

Euh, ba tax na sax si sa bi nga bi ngay jëlaat bi nga nee dangay laajaat mairie bi amoon na coow ñu ne PS am na candidat euh, mais mag yi dafa forcé demal boppam mën nga dellusi si loolu tuuti. PS bi Tanor Dieng gaañoo ñu def fa 20 jours ñetti nit oote Eken Sarr Mamadou Gabi Diouf Ndofène Marthe Yai. gabi ooma mande amna man de ko ko concertation bi may def man fo koy defé mu ne ma faajal ah luñu uti faajal ma ah fuma ma dal nga ñew. dem ba faajal ma toog ah ngay wacc. wàcc ku ne wàcce ak sa escorte ku ne wàcceeg sa taf ma ne waaw lu xew dañ ma waxoon na ñett nit ñooy wax ah man gis naa ku ne wàccee na nga sa ay ay lobby ah ma ne pat pat nag noppi nag comme ndaw ku ndaa rek xam nga ndaw ku ndaa moom dañ koy mbubbee oyof rek mais bopp bi dofut tout de suite ma calculer noyo walla dinañ def nii Ousmane gaayu na ni man a ah waaye wax suma xel ma ko la lii Ousmane day amagut euh, même pas vingt jours si si suuf ñuy wax loolu dañ bëgg a qui kuy remplacer Ousmane premier adjoint bi mu mon moom mooy maire deuxième adjoint bi mon ne moom mooy remplacer premier adjoint bi deuxième at yooyu ñu dañ koy jox jigéen mbaa góor diggante Marthe ak Massamba Thiaw ma ne ah waaw lii affaire bi de góor de yaakaar naa kenn du ko toog doon dafa yaakaar ne nit ñi liñ bëgg fekke ne PS woote woon na CA ak ni PSM si ngay ñan ñëpp tracé benn liñ liñ dor ni nii lañ bugg nga Nguéniène doxalee ko te ñëpp d'accord si damay ralee ànd ak ñoom parce que c'est le mot mais demoon noonu de man kay PS la ba ma fi jógee nekk fa jógee fi pendant cinq ans kenn mas sa dégg may maa ngi parti bi maa ngi parti bi j'étais serein nekk PS kenn du ma dégg may wax yow dañ ñoo tasee mbuur am naa suma vie privée yoo xam maa ko doon def di toppatoo sumay mbir ay famille di toppal lu may réaliser pour njaboot mais gêné wu ma kenn campagne électorale Ousmane Tanor Dieng envoyé am benn 4 x ak chauffeur ak essence mun na président xam naa li nga mun dama bëgg nga jàppale ma Macky Sall mais ngor gi ma ji nga jàppale ma ñu ñu jàppalante pour vraiment Macky ñu wote massivement à Nguéniène et dans le département de Mbour ma def ko and ak mom ba gagné ko massivement kéré bi mu ñëwee pour remercier yow kéré la ko gis. mom dafa waxoon ki koy remplacer wala waxuko xajut ah yow tanon dafa xam dafa da fay dé tanon bi mu dem xam nga lool gars yi dañu wax ne yow forcing nga def danga nga wone sa doole. forcing mooy daf ma ne lii waru ko waru leen ko def mooy ñu dinañ ko def. oo oh, ñu ma concertation dinañ def lii man mag génn d'abord dama contacter suma membre parti d'abord ma ne la waa lu lu ngeen xew ñu ne ma yow. te noonu rek mënoon a tax do nek maire nga yow te noonu dem na parce que nit kat nekkoon na dina nek nekk maire nek nekk nit ñi ñolay ngem man suma parti moma ngem bo d'abord. ban parti. ban parti. parti socialiste. bu ñu ne parti sa amon na candidat. ñet nit ño nek parti socialiste bi moy parti du doxee noonu parti du doxee ñaari parti mo ñaari candidat mo amasi parti socialiste ñaar magay ndaw. ak Eken Sarr mais dégg naa parce que yow xaalis nga jox conseil yi ñu woteel man awma saleer vraiment awma salaire awma indemnité awma retraite tey foo demee suñ kër xaw na awma benn revenu def awma usine awma dara awma xaalis mais am naa nit ñi mais yaa nekkoon euh, président conseil rural amone nga souf sék yëpp. cinq man ku dem né tay mi amna naa bi tay ak suma toli mam yi may bay moom la am mu jógee fof j'avais 16 conseils départ socialiste kan moy gagné tay te amoo coalition Ousmane coalition motam tax ak Macky Sall ma am suma nit ñu baax. suma premier adjoint mu ngi nii toog waa APR la bëggoon naa nekk candidat madame Bill Thérèse Ndaw APR bëggoon naa nekk candidat Badara Jaxate Xalifi bëggoon naa nekk candidat ñu ootante bi ma déggee na ñoom dañuy dem tàllal loxo ñooñ awma droit dem tàllal loxo ñoom ma dem tàllal loxo loolu ma ne leen man de candidat la lu nga ñëw ñu ànd def benn coalition ñu ne ah ñu ne am nañ bëgg-bëgg tey ñu def trois candidats fi ñu defee trois candidats ku ëpp kenn ki moins renforcer voix yam si keneen ki man ne la hé yéen da ngeen a suscite loolu su fi su defee loolu ñu ngi ko fi yeboon pare dañuy gañe de nañ nañu bay nañu bay benn candidature ñëpp nag bay seen bëgg-bëgg ñu ànd. mais léegi dañu ne est-ce que yow bi nga faloog léegi da nga changé commission yi dégg naa da nga da nga dàq ñu bëri da nga changé commission yi. changé wu ma dara renforcer commission bi changé dara changé wu ma kenn état civil. mo am changement Mamadou Diouf biñu ñu installé sa ngoon nga mu téléphoné ma mune ne man de dama suma jot permettre ma ko maay parce que ma ngi internat lycée dafa am ay retard yo xamné vraiment ma wax suma xel ma ah waaw ki 5 ans mënoko muñ xana jekkale mandat mënoko muñ mune mom day bay parce que il veut me mettre à l'aise wala euh, mu jël ku la neex da ko état si essai boo xam ne kenn du si feyeeku dërëm lu ñu si xëccoo. domañaal bi nag. domañaal bu changé ko Tanor Ousmane Tanor Dieng moo nekkoon président domañaal dénk domañaal bi ndoofeen ndóof mais benn changé wu sa man kay dama ragal président bi bi fi nekkatut laa ne may proposé. un autre conseiller mu remplace Ousmane Tandian pour parce que man mënumaa jël dooma ñaal man maa nekk président de toutes les commissions mais suma activité permettre may toppatoo dooma ñaal finance Samba Faye moo comme président finance Légui dafay depuis bi ñu faloog léegi cinq ans mu ngi États-Unis est-ce que yooyu amu nañu ko remplacer Gabi noonu la le lendemain mu ooma mu ne ma maa bureau pour délocacher. cachet bi ma ne waaw kii fu delloo cachet nit ñi duñ am signature de, non laa solo, pat pat ndekkuma kera sax ma ñëw di signé def procédure parce que ki ma fait ki fi nekk tey pendant 12 ans il a travaillé avec moi parce que état civil nag neexuta confier nit de dafa délicat te loo xam ne yow duñ la fay dërëm bénévole la da nga koy jox koo xam ne parce que lu ne xëñ na ñepp man mënuma dem man ngeen la judo suma tante ngeen la am commune bi la am nit ñi nak ñoo bëgg pour ñëw wote pour man parce que man ma ngay ndaw rek mënut tax ma nek maire ngay ñene kii tey mooy nekk son premier objet mu ngi faajal am ambition bëgg liggéey li ñi ñor moy liggéey té 55 conseils plus man muy 56. yëpp dama leen talal loxo parce que kenn fu ñëwee doxut keneen ko du dox donc encore une bonne fois c'est la coalition ñoo gagné nekkul le parti social moo gagné nekkul l'APR moo gagné nekkul la je redis ça que man maa ngi socialiste la kenn ma sa dégg ma kii APR moo nekk moo nekk responsable de l'APR au nom de la commune moom madame Sène donc je mesure bien mes mots Si bu ma xalaatee man def suis un ne ko ma muru ko xam ko ma def ko mais socialiste jusqu'à présent je suis un maire socialiste je suis accompagné de la paire, qui est mon premier vice-président je suis accompagné de de qui est toujours dans mon contexte pour diverger divergence rek mais socialiste li ñuy essentiel mooy la coalition cette coalition bi dañ ko bokk a jàpp pour que nit ñi ñuy fal ñu ñu ñu am yaakaar si ñun ñu def un bon résultat kenn du duñu manigaase yaay après rek yaay kii fàtte na man toom tey keroog bi ñu ko falee fàtte na man li ko ñëw rek mooy la la la collectivité locale